waa gars yi gisaguñ kenn instant bi nii yéen a ngi gis waa gisaguñ kenn instant bi problème bi mooy waa dëkk yëpp instant bi neen dañoo maar si corona bi dañoo maar si couvre-feu bi mais le problème en est que gars yi nee nañ Macky Sall il faut que mu wax parce que sinon problème dina am instant bi tëju bi métti na kenn xamatul Birame Doré ñaari tali mu ngi nii Birame Doré baa ngi nii instant bi gars yi mënuñ gën a reer yi mënuñ gën a def dara waaw kenn xamul ne lii la te Macky Sall nag il faut mu wax population bi parce que population bi instant bi mooy loolu kenn mënatul def mariage kenn mënatul def ngénte rassemblement bi dañ koy bañ mais tam Macky Sall yor njiit yow yaay kilifa kilifa da ngay mat kilifa waxoo population bi gars yi xam instant bi fan nga toll ci gars yi parce que lii nii du yoon instant bi waroon a dépassé niveau bi boo xoolee Italie France ah instant bi États-Unis ñoom ñëpp instant bi ñii pare na ñi ñi ñi ñi ngi si yoon bi Chine pare na te boo xoolee cas yëpp foofu la ëppee woon léegi Sénégal nag ñu soit population mooy génn wax ak Macky Sall wala Macky Sall génn wax ak population bi instant bi ban heure jot instant bi il est presque heures kenn xamul tu vois ñaari télé yi nii bi dafa wéet mi ngi nii gars yëpp instant bi koñ bi dëkk bi ñëpp. yow fii tal ko na ci